waaju ji jublu aji tolloog li jëriñ ñeel gaañu gaañu ba nee na bu fekkoon ne itam boo garabalee ba àggal tax nga mën caa masaa waaye boo ko ŋaawee ni ki boo ko bandaasee da nga mën a masaa ci kaw ŋaaw ga wala bandaas ba kon na nga ko ŋaaw wala nga band ko ba noppi nag awale sa loxo ci kaw bandaas ba wala ci kaw ŋaaw ga nga ko ŋaaw doon si sax da ngaa ŋaawaal loo xam ne bokkut ak gaañu gaañu ba mais am na loo ŋaawaal lu ci bokkut sax nga xam ne moom gaañuwut waaye bandaas gaa ko laaj wala ŋaaw gaa ko laaj rek mënta ñàkk loolu da nga ko mën a masaawaal te du wàññi dara kon na nga seetlu ne ni ñu ko tegalee lu leer la boo amee gaañu gaañu ci sa yaram te nga xam ne boo dee jàpp mbaa boo dee sangu boo ko bëggee raxas na ngay raxase fa wér da nga ca gaañu kon nañ lay may nga raay ko kese ak sa loxo ndegam mën ngaa raay jëmm jë bu fekkee mënoo jekki-jekki raay ko waaye boo ko garabalee ba noppi da nga mën a masaa ci kaw garab ga kon nga njëkk koo garabal ba noppi door a masaa ci kaw garab ga su fekkee ne boo garabal itam du tax nga mën caa masaa waaye boo ko bandaasee wala nga ŋaaw ko kon da nga mën a masaa ci kaw bandaas ba mbaa ci kaw ŋaaw ga ba tey baax na kon nga def noonu ñett yooyu ko noonu koy tegalee mu jox la ci misaal nag ka fas di niki gàjji gàjji bu fekkee dañuy faj ak sët it ba xotti sët it ga mu génne deret loola dana andi ab góom loolu nag bu fekkee ne kooka mënta jekki-jekki raxas ko na muy raxasee fa mu gàjjut kon yi mu la wax ni mooy àtte bi wa imaamatin ak kaala xiifa kooka ragaleef na bi nasiha ci summeem ga su fekkee ne moom dafa kaalawu mbaa bu dee jigéen mu musóoru mbaa sax bu dee góor mu sol mbaxana waaye ragal na ne bu summee kaala gi wala bu dee jigéen bu dindee musóor ga wala bu dee góor bu dindee mbaxana ma seet bi daa koy solu te mën na caa jëlee kenn ci ngaañ yee mu la waxan léegi kon ba tey lislaam ak jàpp ndal la dañ koy wax ne ko da ngay masaa rek ci kaw kaala ga wala ci kaw mbaxana ma wala ci kaw musóor ga waaye du aajow ngay dindi loolee di kaala ga mbaa musóor ga mbaa mbaxana ma ngir ne daay masaa sama bopp su fekkee nag mën naa masaa lenn ca bopp ba te bàyyi ca nag kaala ga noonu mbaa mbaxanam mbaa musóor ga kon na masaa la mën a masaa ca bopp ba wayu soro ci def na sàrt fi marché ca masaa ga almadu góor ga di muñ tudd ak yekkoona bu nekkee julli jasadi yi lépp ci yaram wa saxiixan di aji wér aw jariixan mbaa mu amee ay gaañu gaañu wala yetta dararu tey du loru isa xasara ndem raxas na ak saxiixa aji wér ja daa wax ne lee mu la wax sax ci nga raay la amee ay gaañu gaañu nee ñu ko waxee la amul gaañu gaañu nga raxas ko dañ cee sart mu wóor la ne boo defee noona doo ca amee ngaañ ndax xëy na kat lii nga def ko ba noppi maanaam masaa la amee ay gaañu gaañu ba nga masaayee foofee rek mu daal di andil ngaañ ci lu méttee méttee mét dal la ca la nga xam ne gaañuwutoon ci yaram ba nga xam ne raay ga nga raay fa gaañu rek moo la andil musiba moomee kon bala ñu laa digal ngay raay fa nga xam ne moo amee gaañu gaañu te raxas fa nga xam ne moo gaañuwut mooy rek mu wóor la ne loolu boo ko defee itam du la wàññi dara dara te it fekk la ëpp ci yaram wa wér bañ a amee gaañu gaañu la ci gën a néew amee gaañu gaañu loolu nag ñu ngi koy takkee ci bu fekkee cangaay lee nga xam ne yaram yépp lañu war a sang moom kon dañuy xool la ëpp ci yaram ba bu dee njàpp mi nga xam ne ciri njàpp yi dong la njàpp mi war a aju ñu seet kon ba xam la ëpp ci ciri njàpp ma wér naam déet nga xam ne néew yi bëgg a wax mooy bu fekkee ne soo defee nee ñu waxoon raay la amee gaañu gaañu raxas la amul ay gaañu gaañu jële ca ngaañ lu méttee métti mbaa boog la nga xam ne moo wér ci yow daal dafa néew lool su boobaa danga koy far bàyyi te far tiim kon bàyyil lépp lépp te far tiim noonu rek moom lay wax naa fa inkaana dem nekk na yatta darraru di loru di xas li saxiixi ci raxas aji wér ja aw kaana wala nekk as saxiixu aji wér ja xalilan di aji néew jiddan lool ka an lam yabaxa mel ne desut illaa yedun dara ab loxo aw rijlin wala ab tànk fa innahu naka moom laa yaxsilu du raxas asaxix aji wér ja wala yam saxu te du masaa xaalal jarihi ca la gaañu mooy la amee gaañu gaañu bal li fi nekk kay yan taqilu dana toxu ilat tayamu mi jëm ci tiim moom kay bu fekkee ne nee ñu wax boo ko defee di jéem a raxas la gaañuwut ak raay la gaañu jële ca ngaañ lu metti mbaa boog yow daal ku ko seet sa yaram moom la ca wér amu ci gaañu gaañu daal néew lool daanaka lépp ay gaañu gaañu la su boobaa kon na ngay bàyyi lépp luy ndox te far tiim benn yoon sa farata mooy tiim kon lislaam ba tey gis nga ni mu amee ak jàpp ndal wa isa taxadara ndem gàntal na masxu jarihi masa la ñu gaañ mooy la amee gaañu gaañu bi xay su laa yumkinu ci foo xam du jàppandi waddu bu shayin teg dara xale yi ci kawam wala mulaqaatuhu ci agam taseeg moom bil maay ci dox kon fa inkaara ndem nekk na fii mawdihi tayamum yi ci bérébu tiim ba wala yumkinu tey du jàppandi masu wa masaam nga aydan ba tey bi turaabi ci suuf tarakahu kon mu bàyyi ko bila mas yi julli ak masa julli ak masa wala xas yi du caagam raxas wa xas rek te mu raxas rek maa si wax lu ñu moom day wax nag atte bu fekkee ne gaañu gaañu bi daa metti metti koo xam ne loxo mënu koo laal nga xam ne bu doon jàpp du ko mën a laal ak ndox bu doon tiimit du ko mën a laal ak loxoom kooku dañuy seet bu fekkee ne gaañu gaañu ba daa nekk ci bérébu tiim bérébu tiim moom mooy kanam ak loxo rek waaye xam nga bérébu tiim boo gis bérébu njàpp la kon li muy tekki mooy moom su jàppee faaw njàpp mi manqué bu tiimee itam faaw tiim bi manqué mel ne bu fekkoon ne gaañu gaañu ba daa nekk ci kanamam mbaa mu nekk ci loxoom te loxo mënu koo laal ni ñu ko waxee kon moom su jàppee day manqué bu tiimee day manqué bu sangoo faratay sango day manqué kon na jëfandikoo ndox ma bu ko sangu waree na sangu bu ko jàpp waree na jàpp ba noppi nag foofee nga xam ne loxo mënu koo laal mu dégg ko fa maanaam mu bàyyi ko fa bañ koo laal fa nga xam ne nag moom mën na koo raxas mu raxas ko muy ci njàpp ma muy ci cangaayal farata la ndax ndegam moom bu jàppee mu manqué bu sangoo mu manqué bu tiimee mu manqué ah ñu jàpp ne kon laabug ndox gu manqué moo gën laabug suuf gu manqué wa in lam yakun dem nekkut fii ahdaai tayamumi ci cëri tiim fa innahu naka moom yaxsilu dana raxas assaxiixa aji wér ja wa yatayammamu te muy tiim xalal jarihi ca lañu gaañ mooy ca la amee gaañu gaañu ala ahadil aqwaali ci benn ci wax ya al arbaxati ya di yent su fekkee ne gaañu gaañu ba mënta laal nekkul ci cëri tiim mooy nekkul ci kanam nekkul ci loxo kon loolu li muy tekki mooy su fekkee ne day tiim moom tiim ba day mat du manqué dara bu dee jàpp nag wala muy sangu farata faaw njàpp la dana manqué cangaay la manqué ndax foofee nga xam ne mëneesu koo laal faaw da ko fay dégg rek kooku nag moom am na ñeenti wax daa am ñu wax ne moom daal ak lu mën di am bu ko jàpp waree na jàpp rek bu ko sangu waree na sangu rek jenn wax nga ko ñeen ñeen déedéet ndegam moom koy bu tiimee mat te bu jàppee mbaa mu sangu du mat kon moom day tiim rek muy ñaari wax benn ba ne dañuy seet ba xam la wér ci yaram wa bari na ba nga xam ne bu doon jëfandikoo ndox la ci ëpp ndox ma dana ca dem na ci gën a néew rek muy loolee gaañu te mënee su ko laal moom dong moom la ndox dul laal ñoom nee nañu su demee noonu kon day jëfandikoo ndox ma te bàyyi tiim ba waaye nag bu fekkee ne la wér ci yaram wa daa néew ba mu doon jëfandikoo ndox ma it daanaka lu ci néew la ndox may laal kon da koy bàyyi te tiim nga xam ne ñoom am nañu teqale ci la ëpp ci yaram wa wér foofu ak la ci gën a néew wér waxu ñeenteel bi nag moom la la taalifkat bi tànnal mooy da ngay boole yaar yépp jàpp ak tiim mooy da ngay jàpp raxas la nga mën a raxas jéeg fa la nga xam ne mënoo koo laal ba noppi nag boo taxawee ba julli rek des ci nga tiim boole ca nga xam ne kon tiim ba moom day mat ndax gis nga niñ ko waxee gaañu gaañu ba nekkul ca kanam nga mbaa ca loxo ya wa isa masaxa ndeem masaana xalal jabirati ca kaw garab ga su mën na saxaxaa topp mu dindi ko li dawaa in ngir defaat garab aw xëyrihi mbaa lu dul moom aw saqatat wala mu rot bi nafsiha ak boppam batala kon yàqu na almasu masaaga xale xaa ca moom nga xam ne wa isa raddaxaa ndeem delloo siwaat na ko fala budda mënta ñàkk minal masi ca masaaga taan yeen yoonu ñaareel dafa wax ne nag bu fekkee dangaa garabaloon ba àggal door a raay ci kaw garab ga wala nga bandaas ba àggal door a raay ci kaw bandaas ba kon xam nga masa googee mooy raay googee nga raay rek moo wecc raxasul cër ba kon doorul julli ba ci biir far garab ga nga raayoon daal di rot wala bandaas ba nga xam ne moom nga raayoon daal di dañ su boobaa kon da nga daal di amee am njàpp mu manqué nga xam ne kon julli googa day yàqu soo bañee ñàkk njàpp moomee nag kon da ngay daal di gaaw fi saasay saasa daal di gaaw masaawaat garab googee wala bandaas boobee nga xam ne kon garab ga nga masaawoon ci kawam wala bandaas ba nga masaawoon ci kawam jekki-jekki dañal boppam ak nga dindi ko ci defaat garab mbaa yaa xam tax nga dindi ko ñooyee moo rek àtte bi mooy bu la fekkee ngay julli moom julli googu yàqu na bu fekkee fekku la ngay julli nag te bëggu laa ñàkk njàpp ma fa saasay saasa saye boo daal di gaaw masaawaat ko mooy da ngay ci delloo garab ga wala bandaas ba te daal di gaaw masaawaat ko sa njàpp ma daal di mat na mate woon ba tey njëkk loo lay deñ soo ko yéexee masaawaat rek day mel ne kon da ngaa bàyyi almuwaalaatu day mel ne kon ku doon jàpp bàyyi farata ba mu yàgg te tey ko su boobaa kon njàpp ma ci boppam day yàqu fii itam noonu lay mel boo ci delloo bandaas mbaa garab ga te yéex koo massa yéex massa goo xam ne yaa ko tey ci sa coobare la njàpp ma day yàqu ba tey itam nag bul fàttee ne bu wéree moom te aajoo nga gaaw raxas ko ndegam fekk na nga yoreem njàpp ci bëggoo njàpp moomee yàqu kon na nga daal di gaaw ndegam wér na nga daal di koy gaaw raxas waaw nga xam ne kon bu fekkee ba ngay jàpp da nga koo masaawoon rek wala ba ngay sangu farata da nga koo masaawoon rek gannaaw ba nag saa yu wéree da ngay daal di gaaw raxas ko waaw loolu bul ko fàttee faslu li ab dog la fil masi ci masa xalal xuffay ni ci ñaari sang te wax sang ci wolof rek waaye ay bot daal muy waxin wi ñu gën a miin lil mas yi ñeel na masaa xalehi ci aw bot tamaaniyatu shurootin juróom-ñetti sart nee na ku sol ay bot lay tax nga sañ booy jàpp rek raay ca kaw bot ya te du jar ngay raxas tànke loolu day am na juróom-ñetti sart al awalu bu jëkk ba añ yekkoon mooy mu nekk jil doon di aw der balaa yam saxu du masa ala xiir yi ci ludul moom kal xirax yi mel ne sagar ya wan xawihaa ak lu mel ne ñoom ida suni xat ndéem la géeyef na leen xala xay atil xof fi ci melow sang wala nga ne ci melow bot sartu jëkk ba mooy sang wa mbaa nga ne bot wa dañ ko lëggéeye ci der bu fekkee dañ ko lëggéeye ci xeeti sagar niki kawas yi nga xam ne mu nga mën a sol muy bàyyi ko ci wëttéen ba leneen kon deesu ca mën a masaa gis nga kawas nag bu dee yii ni mel ni ñu solee bot dañ koy sole muy gudd bay sore ci tànk bi lim ci teg nag ne illal jawra ba dañ koy firee ndara aw kawas wax wëtte moom maa mooy la nga xam ne kaana nekk na xalaa chatil xuf fi ci melaw bot minal kattaani te bàyyi ko ci wëtteen wan xafi ak lu mel ne moom min fawqi yi tam nekk ca kawam wa min taxti yi ak ca suufam jildul aw der maxaroo suñu wuti wuñu ñaw xam nga bu ne lu mel ne aw kawas sañu su ko masa gannaaw ba mu ne lu may aw kawas da ngay xool ni mu ko leerale daa wax ne li nga xam ne kawas la di liggéeye ko ci wëteen mbaa lu mel noonu bu fekkee ne kaw ga moom der la suuf ga itam der la te der wa ñu ñaw ko waaw su boobaa kon amee na sartu bot maanaam kon manis na caa masaa ndax sartu ñu lépp lépp nekk der la féeteeg asamaan sa muy kaw ga ak la féeteeg suuf si rek bu fekkee ne der la rek dal nay baax waaye nag ñaw gi ab sart la ci dana ko leeral léegi ak taani ñaareel bi añ yekkoona mooy mu nekk taaxiran di aji laab wala yam sax du masaa xalal najisi ci aji sobewu ka jildil xinsiiri niki deru mbaam xuux wa jildil maakooli ak deru lu ñu lekk xëyril mu zakka lu dul lu ñu rendi awil mu zakka wala lu ñu rendi xayril ma akooli lu dul lu ñu lekk wa in dubix ak doonte sibi jéef na ko sibij mooy ni ñuy defare aw der dénd ko def ca nenab mbaa lu mel ne godoron ba mu set wecc loolu mooy sibij ci wolof ba ñu sartee bot wa doon der dañoo sart muy der wu laab der wu sobewu bu fekkee ci lañ lëggee dàll wa ni ki deru mbaam xuux mbaa deru bàyyi ko ci lu ñuy lekk loo xam ne kenn rendiwu ko xam daa medd kon du laab mbaa loo xam ne ren nañ ko sax waaye du lu ñuy lekk kon daal wu ñu lëggee ci deru mel noonu kenn du ca mën a masaa ndax laabut laabuk julli ak taali su ñetteel bi añ yekkoon mooy mu nekk maxaroosan di lu ñu ñaw sarf ñetteel ba mooy mu nekk lu ñu ñaw te bañ a nekk lu ñu taqalee ci kol mbaa ñu yeewu ko rek ba mën a dem ca tànk ba ba tax mu teg ci falaayam saxu duma saa xale yi ci moom isaakaana ndem nekk na mara bootan di lu ñu yeew aw nax waxoo wala lu mel ne moom su fekkee ne dàll wa dañ ko kol rek mbaa ñu taqale ko laax wala ak mooñ ba mu dëgër rek waaye kenn ñëwu ko ba tey kon kenn du ca mën a masaa arraabixu ñeenteel bi añ yekkoona mooy mu nekk saatirin di aju suturaal li maxalil fardi ñeel béré bu farata ba laama du caagéen loo xam ne naqa sa yées na ko falaa yasixu du wér almasu masaaga xalihi ci moom sartu ñeenteel ba mooy lu mu gàtt-gàtt moom bot yi na dem ba sàng dojar ya muy béré bu farata ba waaye bu mel ni ay mukki rek nga xam ne moom dojar yi du sàngu kon kenn du ca mën a masaax wa kasaaliki nii in kaana ndem nekk na fii ci moom xarxun ab xottiku kabirun bi ajërëy xadduru sulusil xaddami kem sulusut ndëggu la ba tey bu ko see am xottiku bu rëy rëy day mel ne kon sangatut tànk ba bu dee xottiku bu ndaw moom waaye xottiku bu rëy moom bu ko see def rek bu toll ne ceeru ndëggu la maanaam daal la ca xottiku boo ko doon seet boo defoon dëggu la ñetti xaaj la ci xottiku mat na benn xaaj ba lu mel noonu kenn du ca mën a masaa ndax kon suturaalut béré bu farata ba bu fekkee dafa bën dong nag te bënn ba doon bën bën bu sew nag moom sew ruuj kon moom du yàq masaa ga alxaamisu juróomeel bi añ yum kenn mooy bu jàpp ndee tataa baxul machyi toftale dox ba fii ci moom falwaasiu aji yaatu ja ëllësi ja nga xam ne laa yumkinu du jàppandi an yu taabiha mu toftale almaché dox ba fii ci moom laayam sax du masaa xale ci moom juróomeelu sart yi mooy bu solee dàll yi na ca mën a dox bu baax waaye bu yaatoo ba ëpp moom bot ya mbaa mu xat ba ëpp nga xam ne ku ko séen muy dox rek mu daal di xam ne dàll yee ko tax doxi nee waaye du aw doxinam kon du ca mën a masaa assaadi su juróom benneel bi añ yal ba saxoo mooy mu sol ko xalaat taxaaratin cig laab balaa yam sax du masaa xale yi ci moom isa la bi saxoo ndeem sol na ko wax wate mbir moom moom mu hadisun aji tojle la juróom benneel bi mooy ba muy sol bot yi fekk mu nekk cig laab waaye bu fekkee booba anuwul ak laab su boobaa bu waree jàpp itam day raxas tànk yi waaye du mën a masaa ci bot yi wa yustaratu te def na sart fi haadihi tahaarat ci kili laab an takkoona mu nekk maa iyatan di koju ndox nga xam ne falaw teye mama doonte tiimoon na tuma labi saxoo toog mu sol ko lam yam sax du masa xalihi ci moom dañuy sart bu ñu nee balaa sol bot ya na fekk mu nekk ci laab dañuy sart laab googu nekk laabug ndox nga xam ne bu tiimoon ba noppi wëlbati ko sol bot yi day mel ne kon sol na bot ya ci laab waaye laab ga day laabug suuf laabug ndox lañu wax wa an takoon ak mu nekk moom laab ga kaamilatan di aji mat walaw xasala doon te raxasoon na ihdaa rijlayhi benn ci ñaari tànkam ña wa adxalahaate mu dugal ko fil xuffi ca bot wa qabla xaslil uxraa ci njëkk raxas ba ca des wa naxwu dalik ak lu mel ne loolee laa yam saxu du masa xale yi ci moom ba ñu ne laab ga na nekk laabu ndox dañuy sart itam laab ga mat mooy mu def ba noppi door a sol dàll yi waaye bu fekkoon ne daa raxas tànkum ndeyjoor daal di koy solal aw watam door a raxas tànkum càmmooñ ba ak lu demee noonu kon xam nga ne teel naa sol xaat tànkum ndeyjoor ba te fekkagul njàpp mi àgg kon su boobaa itam sart ba xëtt na bu àggee ci jàppaat du ca mën a masaa faaw day raxas tànk ya li tax nag ñenn ñi wàññi sart yi muy nekk fukk kii na wàññi ko mu juróom-ñett looloo ko waral mooy da koo dugale ndax ñoom ñi sart ba sart ya mat fukk dañuy wax ne na ko sol ci laab dañ koy def sart laab ga nekk laabu ndox ñu ber ko ba dib sart te moom itam leeral na ko sax moom ñu ko waxee te it laab ga mat njëkk muy sol dàll ya nga xam ne kon ku mel ne moom mii di wax juróom-ñetti sart ak ña koy wàññi moom ñu fukk ñoo yemoo rek ca nañu koy wàññee rek ca lay wuutee waaye sart yi moom yenn yee asaabihu juróom-ñaareel bi an laa yakkoon mooy mu bañ a nekk xaas yéen di aji mooy bi lub si ca solom nga kal muhrim ni ki aj aj armal armal mooy dugg ci aj mbaaxum ra xayril mudu tarri kudul ko ñu loruloo li lub si jëm ci solom nga aw bi safar yi wala ci tukkeem ba kal xaaqi ni ki aji dagg ak bokk aji dog ak bokk wal aabixi ak jaambu yi aji daw falaa yam saxu du masa waahidun kenn min humaa ci ñoom ñaar juróom-ñaareel bi mooy moom ma sol bot ya bu mu ko sol ci xëtt ndigal ni ki koo xam daa armal aj mbaaxum ra dañ koy aaye sol ay bot bu fekkee am na yeneen dàll ku mel ni kooku nag bu amee yeneen dàll nga xam loruwu ca ba noppi sol ay bot nag kon du ca mën a masaa ndax jëmmi sol ga muy sol bot ya ak mooy la li wax nag ne ba tey bu dee mooy ca tukki ba maanaam tukki ba bu nekkee tukki mooy mel ne kuy daw ay bokkam ba jamonoy jaam amee jaam bay daw sangam mu ne ñooy ñaar kenn du ci mën a masaa wax ja gën a wóor moom mooy ñàkk mooy ci tukki ba moom du ci ab sart tukki ba bu nekkee tukki mooy itam du tee rek kooko sañ caa masaa ndax nee nañu gépp jàpp ndal gu yoon def goo xam ne booy tukki ñu may la ko boo tukki wutit ñu may la ko kon di ca tukki tukki mooy du tax ñu xañ la jàpp ndal googee moo tax sara bi naa la wa dakara bnu marzuqin daabitan wa huwa anna kulla ruxsatin laa taxtassu bi safarin ka mashi xuffin wa tayammumin fa tufxalu wa in min xaasin bi safarihi wa kullu ruxsatin taxtassu bi safarin ka xasri salaatin wa fitri yowmi safarin fa yustaratu an laa yakkoona xaasiyan bi maanaam bu dee jàppandal goo xam nag moom dañ koy maye képp ci tukki waaye boo tukkiwul deesu la ko may mel ne wàññi julli mbaa ñàkk a woor te fekk muy jamonoy koor kooku dañuy sartaale moom tukki ba bañ a nekk tukki mooy ak taaminu juróom-ñetteel bi an laa yekkoona mooy mu bañ a nekk mu tarafihan di aji bànneexu bi lub si yi ci solom nga fa man la bisahoo ku ko sol dinaw min ngir nelaw aw ndax wi yi mbaalu mel ne moom laayam sax du masaa xale yi ci moom juróom-ñetteel bi mooy sol ga muy sol botee bu mu ko def rek ngir bëgg lu ko neex ni ki daa xew rek ñu koy waaje moom daal di koy waaje bu dee lu mel noonu rek mbaa boog daa bëgg rek bu dee jàpp mu noppal ko mu tàyyi raxas ay tànkam xanaa masaa ci kaw rek bot ya bu dee lu mel noonu tax mu sol bot yi ba tey du ca mën a masaa lay tax mu sañ caa masaa kay mooy da koo sol ngir wattandiku tàngaay mbaa sedd mbaa watti mbaa wattandiku jiit mbaa jaan mbaa bokk rey ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu dee yooyu tax moom dana ca saña masaa waaye nag di ko dara jawoo rek ak daa xew rek yu demee noonu moom bu taxee mu sol ko du ca mën a masaa tam biihun li ak yeete la isaj tamaxat ndeem daj na haadihi shuróot yi lay sart jaasa kon dagan almas fu masaaga wala yatawaqatu te it du daytalu mooy di du yem rek bi waqtin ci wenn waxtu wala yalsamuhu te du ko war nasuhu sumim nga illa an taxsula ndare bu dafa am loxoo ñeel ko janaabatu janaaba aw yaxsula walay am fii ci moom xarxun ab xottiku kabirun bi ajrëy aw yan siha wala muy summi xaddamahoo ndëggoom la aw ak saraha mbaa la ëpp ca ndëggu la ila saaxi xufihi ba ca yeelu botam wax daa wax nag sartin ci sart ni mooy tax nga sañcaama saa bu xasee am moom jeex na man nga saa yoo jàpp rek raay ca kaw bot ya du jar ngay summi bot ya di raxas tànk yi tey duñ ko sàkkal waxtu ne boo amee ñaari fan mbaa boo amee ñett mbaa boo amee ayu bis moom daal li fekk permission bi deful la ko xañ rek li fekk jàppandal gi deful la ko xañ rek man nga saa yoo jàpp massa ci kaw bot ya bañ a raxas tànk ya waaye nag teewul sopp ne nee nañ bis ajjuma bu ne booy sangu ca ngaayal ajjuma la rek nga summi bot yi daal di raxas tànk ya loolu sopp nañ ko duñ wax nag ne bu amee nangami fan war koo summi mbaa nangam moom daal li feeg defoo li waral ci yow nga summi ko rek bu la neexee bàyyi ca bot ya noona waaye nag boo demee ba am janaaba janaaba moom boo ko waree sangu faaw nga war a summi bot yi raxas tànk yi ba tey bu fekkee moom bot yi daa amee xottiku bu rëy ni ki mu toll ne ceer ba lu toll ne ceer ba xottiku na ca ba tey loolu kon faaw rek nga war di ko raxas masaaga jeex na mbaa boog nga tàmbali woon di summi bot wa nga xam ne nocc nga sa tànk ba nga xam ne ndëggulu ci boppam mbaa la ëpp ci ndëggu la ñëw na ba tolloog yeelu bot wa xam nga di ci ëpp bot yi day yaatoo yaatu ba nga xam ne boo ko di summi da ngay ñoddi sa tànk muy génn ndànk-ndànk léegi nag sa tànk boobu ngay ñoddi muy génn ndànk-ndànk su fekkee ñëw naa ñëw ba nga xam ne lépp ndëggu la mbaa la ëpp ci ndëggu la ñëw na ba tolloog yeelu bot wa yeelu bot wa mooy fa nga xam ne mooy suturaal sab yeel ca tànk ba akay loolu lañ jublu su boobaa kon xamal ne jàpp ndar gañ la mayen jeex na see boo daal di gaaw bu fekkee bëggulaa ñàkk sa njàpp moomee nga daal di gaaw raxas tànk ya ndax ndegam bot yi nga masaa woon te neeñ la léegi masaa ga yàqu na ndax summi nga li ëpp ci ndëggu li mbaa lépp ndëggu li sax bu mu ñëw a ñëw ba ca fa tolloog yeel ba maanaam fa nga xam ne daal mooy yeelu bot wa yeelu bot wa wax naa ko léegi mooy fa nga xam ne boo ko dee seet ca bot wa mooy sàng sab yeel loolu lañ jublu ci yeelu bot wa boo xasee summi ndëggu li mbaa la ëpp ci ndëggu la ba mu ñëw ba foofu rek xamal ne permission bañ la mayen jeex na masaaga nga masaa woon tam yàqu na bu fekkee da ngaa amee woon am njàpp yooyu jamono itam xam ne masaa woon nga ca say boo daal di gaaw bu fekkee bëggulaa ñàkk njàpp moomu daal di gaaw raxas tànk ya ndax masaaga moom jeex na su fekkee yéex ngaa raxas tànk ya rek kon day mel ne da ngaa bàyyi almuwaalaatu da ngaa bàyyi sësale ga mel ne ku doon jàpp ba ci biir mu bañ koo sësale ci kaw coobareem kon njàpp ma day yàqu fii it boo summee dëggu la mbaa la ëpp ci dëggu la ba foofee ñu la wax ci gaaw raxas tànk yi noonu lay mel ngay daal di ñàkkum jàpp wa sifatul masxi melow masaawa al mustahabat wa diwuñu sopp an yadaxa mooy mu teg asaabixa yadihi baaraami loxoom ba alim naa bay ndeyjoor xala atraafi asaabihi rijli yi ci cati baaraami tànkam ba min zahiri xadami yi ci bitim dëggoom la alim naa bay ndeyjoor wa yadaxa te muy teg yaddaxoo loxoom al yusra bay càmmooñ min taxti atraafi asaabihi yi ci ron cati baaraamam ya min baatini xufihi ci biir botam wa wa yu mir raxumaa te mu leen di rombale ilal kaabay ni ba ci ñaari dojar ya wa yafxalu te muy def bil yusra ci càmmooñ ba kazalika naka noonee xalaa ahadil qawlayni ci benn ci yaari wax ya li ñuy masaaya pat yi am nag jàppandi lool da ngay jël sa loxoom ndeyjoor teg ko ca kaw ci kaw pot wa tam tolloog fa baaraam ya toll su ko defee nga jël loxob càmmoñ ba teg ko ca suuf bot wa xam ne kon loxob ndeyjoor bi moo tegu ca kaw bot wa tolloog baaraam ya loxob càmmoñ bu nekk ca suufam tolloog moom bu ko defee nga ñoddi nag muy ñëw di ñëw ba àgg ca dojoor ya fa nga xam ne boo doon jàpp da nga fa àgg soo defee noonu rek ma saagaa ngoog boo ko defee tànkum ndeyjoor nag nga jàll def ko tànkub càmmooñ daa am ñaari wax na daa am ñu wax ne ñaar tànk yépp yam bu mu ci mën doon rek booy masaa loxob ndeyjoor bi muy féete kaw boobu càmmooñ féete suuf am ñu wax ne déedéet boo ñëwee tànkub càmmooñ kay moom loxob càmmooñ bu muy féete kaw boobu ndeyjoor féete suuf waaye moom daa topp wax bi nga xam ne nee na ñaar tànk ñépp yam fu mu ci mën doon rek loxob ndeyjoor ba mooy féete kaw loxob càmmoñ ba féete suuf nga tàmbalee cati baaraam ya bomb nag ñëw ba ca dojar ya faslun li ab dog la alxaydu bërëg huwa moom addamu mooy deret ja